waaw Paa Ibrahima maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di xaar na tontu say laaj euh, waaw ginnaaw ba ma rafetloo seen teewaay. père euh, xamante ni lan moo war a li ko waraloon rek mooy xam nga làmb euh, bu jeexee da am la ñuy topp mais biñ càmbaree gis nañu ne li tax arbit bi. jox Lac de Guiers victoire gis nañ ne Lac de Guiers Siteu def na ko ko maanaam Lac de Guiers génne na Siteu mais gis nañu ne Siteu génne na Lac de Guiers da ko jàpp puus ko ba mu génn ci biti te foofu Lac de Guiers dafa waroon am avertissement ginnaaw ba combat ba fa la jeexee nag te benn avertissement rek la te ñun gëm nañ ne ñoom ñaar kon ku ci ne am nga benn avertissement moo tax ñu bind recours déposé ko indi suñuy preuve ndax boo bindee recours indi say preuve indi nañ vidéo bi wane ne Lac de génn na mais tax ñu déposer recours pour ñu casser verdict bi loolu mooy suñuy tànk tey euh, loolu la ñu yoon may topp nañ ko avant ñuy dem kër ga sax jot nañ fu ne ba à l'étranger wane na kat Lac de génn na comme ni Siteu génnee kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne da ngaa waroon a avertissement looloo tax ñu ñu ñu ñu ñëw. li mu wax rek mooy li def tey comme ni ko président waxee gis nañu ne Siteu génn na mais gis nañ ne Lac de Guiers génn na. loolu tax ñu bindu recours pour ñu casser verdict bi loolu mooy suñu tànk indi nañ suñu preuve déposé di xaar commission règlement discipline atte lan mooy réponse CNG bi non réponse xam nga boo dugalee tey après dañu oo commission bi ñu toog waxtaan ko parce que ñun am nañ suñuy caméra ñoom it am nañ seeni caméra dañuy toog buñ paree nag ku ci ne lu ñu atte ñu xam ne lii la ñu mais daal xalaat nañu ne suñu xalaat bi ñu am ak ni mu leeree te lu ne fang kenn du ko jeex gis nañu ne la da génn na comme génnee kon ñoom ñaar ñëpp ku ne am nga benn avertissement kon dañoo war a casser verdict bi ñun loolu la ñu gëm moo tax ñu bind recours. Euh, suñ casser verdict kon su ma juul match nii la a. ah buñ casser verdict lay doon te ku ñëw ci terrain bi xam nga ne looloo fi am surtout génn na am avertissement lat génn na joxuñu ko avertissement ma naa doon erreur arbitrage wane nañ suñuy preuve wane ne surtout génne na Lac de Guiers te mu leer naññe moo tax ñu bind recours di xool nag lu ñu yoon may. xalaat nañu ne euh, bu ñu àttee xalaat nañu ne dañ kase verdict bi ndax image leer na quoi te image lu ne fànk kenn du ko jeex leer na nañ ah loolu ñoom ñoo ko xam parce que ñun bind rek lañ am mais ñoom kan la ñuy siégé ak na kañ la ñuy àtte loolu ñoom xamu ko nekkul suñu loxo mais ñun li nekk suñu loxo mooy bind nañu recours indi nañu suñuy preuve di xaar seen seen tranché donte bi ñuy génn fii am nañu ndam ñëpp kontaan nañu mais loolu doyul duñ bàyyi benn teddaay ndax boo bàyyi mu jàll day bokk ci palmarès day bokk ci palmarès Lac de Guiers te gëm nañu ne combat bi jël amu fi victoire amu fi moo tax ñu bind recours. waaw jërëjëf Fils. ñoo ngi taxawal ki nga xamante ne mooy président Cheikh Nia nekk président écurie Lamsar président euh, ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ñu ngi lay delloo fay. di sant yàlla di julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di rafetlu aussi seen taxawaay ak seen liggéey yéen Sénégal 7 ak mboolem ñi nekk ci presse bi ne ci làmb. Euh, mën nañ xamoon Euh, lan moo waraloon sa teewaay fii si seen tey. Ah, waa tey jii li waraloon sama teewaay xam nga suñu point bi Siteu daf doon bëree dimanche passé ak Lac de Guiers. Hmm. yàlla def nag bi combat bi jeexee ñu jël victoire bi jox ko Lac de Guiers par benn avertissement hmm. te ñun ci suñu biir ñu gis ne. aussi tamit Lac de Guiers ci boppam moom moo njëkk def sortie parce que def ni sort def na sortie délibérée te sortie délibérée boobu mu defoon arbitre bi joxu ko avertissement ah, donc nag ci loolu la ñu sukkandiku pour ñëwoon CNG tey ji pour déposer ci recours comme ça ñu mun a xam ne aussi tamit avant Siteu di def sortie délibérée Lac de Guiers moo njëkk a def sortie délibérée te sortie délibérée bi nga xamante ni moom def na ko averti arbitre bi joxu ko ci woon avertissement donc nag ci loolu lañ bëgg a sukkandiku daal déposer recours bi ci CNG pour ñu fexe nu ñu casser verdict bi. Hmm. lan la yoon may. li ñu li ñu yoon may moom mooy ñu def recours. Hmm. parce que làmb dafa métti. Hmm. combat waroo ko préparer ba mu egg si fii nga di ko perte aussi ci ay détails. jàpp nañ ne aussi tamit njuumte la peut-être ci côté arbitre. comme jàpp nañ ne aussi njuumte la. te indi nañ luy firndeel ne njuumte la parce que boole nañ ci. Euh, boole nañ ci vidéo bu nga xamante ni dana montré ne lii ñuy wax aussi dëgg la parce que waa ji jéggi na saako yi. te arbitre bi bi bi mu jégee saako yi bu fekkoon te ne dañoo jéggi saako yi sax tàqale ko wuñ mais moom moo jógee fi mu nekkoon ñëw soufflé tàqale leen pour delloosiwaat leen ci géew bi kon xam na ne kon kooku génn na ci bi. est-ce leen regroupe. CNG en tout cas déposé nañ ko. Mm-hmm. ba jot naa euh, copie bi. Mm-hmm. déchargé nañ ko ci sama kanam incha allahu taala. Mm-hmm. waaw léegi nag li ci des dañuy xaar commission de. règlement yi disipline ñoom ñu xool ko lépp loo xamante ni yoon may na leen ko ci yoon may ñu ko ci aussi tamit yaakaar naa ne dinañ ko def balaa yàgg incha allah. waaw ah, Malick Faye. ñu euh, lay ziar baax di la bëggee bu baax. ah tey dama ñëwoon fii CNG xam nga si sama ndigalu mag Maxu Meng doon seet président Bira Sène di ku baax aussi nit ku modeste maanaam CNG bi ñëpp dal muy Bira muy ñambe muy Mbay sa même boo ne woo jotoon sax ñoom da lay def retour. ah man de kontaan naa si ñoom trop waa CNG bi parce que yëg mooy nit yëg waaw même bu dul dara yëg mooy nit man nee waxuma Alioune Sarr liggéeyul mais Bira mooy sama président dafa yëg nit. dimanche ñu jógee si su diggante Siteu ak ki euh, de Guiers euh, euh, 2 ban ban ban ban ban si combat. waaw jërëjëf laa ngi laaj solo mais ban maa ñëw si loolu dama am fa nekkoon bu baax ma ko wax ndar xam wax lam te ndar mooy premier capital du Sénégal. te pour pour l'instant Dakar mi ngi yëngal te nar yëngoogul Mor ñu lancé message CNCF na gën bàyyi xel région yi parce que dama war a tëgg comme ñëpp xam nga ok waaw. Lac de Guiers am na mérite parce que ku dee Lac nga défendre ko di nga li mu def ci combat bi mos ko def ci combat. Lac mu sonné ci combat bi mos am na mérite de ñëpp dañu ne woon combat du duré une ba tëj ko ba temps bi am benn aboutissement man CNG foofu sax dama dama da war a nekk match bi combat bi parce que Siteu maam taay mu andi ak li mu toll ak laaj gi li mu def ci làmb Siteu bëri moom ba ba temps ba vingt minutes kenn daanul maanaam li ñu yor moom ñoom ñaar ñëpp ñu def match mais règlement la règlement moom kenn du ko critiquer mais Siteu am na mérite bu rëy ñëpp la bett bëri na combat bu rëy rëy rëy jàmbaar la vraiment. lan ngay reproché Lac de Guiers. waaw Lac li ma koy reproché mooy mu gën di bëree mu gën di bëree maanaam combat bi ma yaakaaroon dina bëree parce que Siteu meroon nag nee na ko jongama bi xam nga da ngay teg léwal waroon na ñëw andi bëree malgré bëri na mais mënoon gën a bëree parce que maanaam nii am daal moo koy may ndam est-ce que loolu dina ko changé. waaw non waaw mais mais a neex ba dimanche. mais mais boo boo toppee ba loolu. waaw loolu dëgg moom loolu mooy bëri moom mooy issue lu bëri xam ñëpp dañu ñëw yàgg a doole yàgg maas ñu yàgg lamb ku bëri yëg nii bëreeg euh, bu mu bë bëreeg ku nekk Siteu war a jaaxal mais Siteu dafa ñu andi masse entraîné ba léegi ba taxaw ba ko koŋ pare ñeme laa dëgër nag su ma problème bi mu daal nag maa ngi koy mu gën a maanaam ñu bëri baax na mais mu gën ko mu mu gën a actif tuuti amateur yi foog ñuy bëgg foog amateur di bëgg am solo si lamb. benn reproche nga si Siteu reproche amoo si yoon teg na ko si temps ki koy bëri poids lourd la foofu mu dépassé daw la ko jëm ko jumloo Siteu li mu bëri loolu war a comment bi muy war woon dem ci nga xamante ni moom di daal liggéey non c'était moo nekk xale mais c'est xool stade bi ni mu def mu sóor ñooñu si bu daanoon Koro Koro stade bi ni muy demee mu sóor ñooñu champion am public am mbooloo. raison pour laquelle mu war a def ay jéego pour bëri. mais Lac de Guiers du magu kenn day entraîné. Mhm. Lac de Guiers ku ne gis ne li muy def ak booy ñaar deux si suuf si mais ñaar deux dama ko mere en tant que booy jënd ñaar deux dama ko mere waxuma ko pour dara mais moom bu Lac de Guiers amee combat dafa ne si wetam parce que surtout léegi si TikTok bi ñaar deux les deux. Lac de Guiers di ko entraîné di ko ko liggéeyaloo kooku bu amee combat dafa la gis si wetam pourquoi pas muy dem tukki di bàyyi bàyyi fi Lac de Guiers dafa lu ñaaw waa ñaar deux de mer naa ko trop combat bi Lac de Guiers war gis si kanamam Siteu moom vraiment def na lépp am na mérite bu rëy parce la bett waaw vraiment. Euh, euh, euh, loolu ban appréciation. waaw ah, waaw waaw loolu ma sore loolu loolu dama sore parce que Maxime Mbargane nii moo jëkk nekk sama manager ci lamb combat ma jëkk bëri arène Maxime Mbargane moom ma jox avance sama combat ak Basirou Sarr Gaston Mbengue kon moom lu ko ci man xaw ma ci lamb xëy na ñoom li ñu gis man gisuma ko du dëgg daal ah, ni yaa daal na lu rëy man maa ngi aussi waa CNC du ma taay wax nit da ngay am yar gis nga yar lu mu la maylul ay rewan di la ko may ama dégg CNG bi ku leen ku leen gërëmul bàyyi leen ak yàlla jàmbaar nañu parce que même lu dara am nañu yar am nañu teggin moo la wooy jotu leen da lay woo retour man bi neex si moom mooy yar bi nekk si moom ñambee ñëw may si ma sax man naa ko naan si ñoom maa ngi ñaan Sénégal noonu ñaan CNG bi yàlla dafa leen ndamul kéwa seen jot parce que ay nit ñu baax ñuy liggéey ñuy liggéey ci bën sit la Sénégal 7 ci kaw ci kanam incha allah yàlla ngay romb sin yëpp ñoom Ligue TV ak ñoom Léewdoo ñëpp yàlla na Sénégal 7 romb sa kaw ci kaw xale yu baax ngeen man booy gëndar maa ko yàlla nga fii ñëw kaw ñëpp waaw allah te ngeen ñaanal nag ndar ma nekk di bu dëgg làmb te ay combat yu mag andi fa ak ñoom Balla ñoom Modou Lo ñoom ñoom Boy Niang loolu laa bëgg ci kàttanu yàlla jërëjëf mais Sénégal yëpp nag képp kuy bëggee booy gëndar maa ñaan na tous les sénégalais kuy bëggee booy gëndar siiwure Sénégal seet na tous les parce que ay xale yoru ñu fi nekk ñoom naan nga ma yaru sa booy bi gis nga kenn booy la caméraman bi liggéey da ko wóor seul le travail qui paye y a pas Sénégal seet ci kaw ci kanam inchallah